di la encouragé nga wàcc fa loolu lépp tey damay seeti suma frère Pape Sarr bi nga ñëwee nin la teeroo kii laaj na ko sànq yëg-yëg bi parce que xam nga ne tey jii demoo kër jàmm sa kër nga ñëw parce que fii nga ñëw tey mën nga fee lekk mën nga fee naan mën nga fee fanaan sa diggante Pape Sarr seen ànd fan la dooree waaw mooy li mu la wax rek Pape Sarr sama maam suuf seen fii la dëkk mm-hmm. waaw man dëpp lu may dalee man fii laa yaroo mm-hmm. waaw yaayam nekk suma yaay mm-hmm. Pape Sarr lu ñu boole dafa dafa bari waaw parce que démb la tey soog ñëw waaw mu nekk nit koo xam ne kon mu ko waxee rek nit bu mën nitam nit bu mën bésam waaw Pape Sarr moom dañoo bokk ndey bokk bàyyi waaw waaw seen ànd lu la ci gën a marqué ndax gis nañ saa boo amee combat Pape Sarr wax nga ko sànq moom xam naa bu defulee dina bu amee 15 ans bi dofit ki huit ya dina ñëw loola loolu <laughs> non Pape Sarr moom depuis géej ah. waaw depuis bu may entraîné géej nekk xale. kenn gëmul woon moom dafa bokk si njëkk a gëm ko waaw si njëkk njëkk a sonn. waaw ba pare di xam ñu xàmmee ko tamit aussi ràññeeku ci jàppale ci yàgg sonn ci Pikine. waaw waaw loolu moom mënuñ ko seedal ko ba pare xolam dafa rafet ko nekk lu mu ba day dem ba liggéeyam yàqu sax. ndax xaritam. ndax nitam ko waaw moom nitam da koy jaral lu nekk. waaw loolu la Diaz ana kàggulu bi. beneen bi tam aussi maa ngi sant maa ngi sant presse bi ah. maa ngi sant bu baax a baax a baax. parce que tey fi suñu suñu kàddu yeggul rek. te na ngeen ko koy yeggale quoi. Mm. te yéen ak ñun ñoo bokk liggéey bi. Mm. te seen liggéey rafet na. Mm. yéen a ngi defar xam nga. yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet di leen ñaanal tamit fi ngeen bëgg a yegg rek yàlla suñu borom yeggal leen fa. mais am nañ contentement bu rëy ci yéen quoi ak fier tamit aussi quoi. waaw mm. parce que tey fu làmb toll rek bokk ngeen ci lu ko yokku quoi waaw yow moom soo frère nga du ma wax waaw kii moom xam nga ñëw samay gars lañ di nuyu tamit pël pël bu rafet <laughs> <laughs> rafet di nuyu ñëpp ah di am contentement ci presse bu baax a baax Sénégal tamit aussi vraiment di ñaan jàmm yàgg fi may tourné tamit di santaat samay supporters bu baax waaw parce que nu ñu ma taxawoo ci bis bi maanaam man aw ma seen fay waaw lu ko dalee mbaaw ba ci stade bi ñëpp a génn te tam fépp sama supporter nekk rek gis naa yéene bi ak conseil ah waaw combat bi ñoom dañ ci sonn quoi musuma am combat ñu dundee ak man nii conseil xalaat yeeg sarax yi ñëpp diaspora bi tamit aussi ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi di nuyu kaaw ak ñëpp damay suivre xam nga euh, ni ko ci commentaire yi yëpp waa waa may may am mbégte ci ci soppe yi ak bég yi ak xam nga fans yeeg ñëpp ah waaw même ñu ma support ñi nga ne sax Euh, yeneen mbër ñoo nekk seen seen mbër xam nga gis naa ni vraiment dañ may yéene jàmm et xam nga sportivement xam nga jàppale nañ ma si combat bi quoi. combat faa demoo Maka Diané ak Bogal. non naa Maka Diané dem naa Bogal <laughs> xam nga Maka Diané moom xam nga man taalibe laa fa xam nga doom laa fa. parce que lu bari quoi. voilà Bogal tamit aussi fan la jëm. non dina suma kanam rek ñu koy préparé suñu staff. waa mais xam nga boo jógee ci combat. dafay laaj xam nga. nga defar waat xam nga prépare waat quoi. waa ñu ngi ci phase boobu ko waaw mais bu ñu paree moom incha allah képp ku ñu làmb boole la ñu war a bëreeg moom rek. dinañ pare pour bëreeg yow quoi waaye. des pour safal ko ba tey. waaye nag ñu ngi jox parce que man samay morom laa fi nekkal. waaw samay morom laa fi nekkal jàmbaar. Ah. li ma leen di wax man du ma waxantu. Hmm. parce que man góor yàlla laa. xaaral bul dem. du ma waxantu bu ñu tegee carte d'identité yi. wala suñ ma magulee un an maguma leen ku ma ci magee deux ans ma xot sama licence ci jour bi laa koy xotti bu ñu indee carte d'identité mu leer parce que jugement yi dañu koy xam man samay morog laa fi nekkal man dama teel nekk booy bu ndaw di yor saag yi di yor ngemb yi di ak suma grand yi di dem ñi ci bugguma si ay tur ay champion mag yi fi nekkoon ma yàgg ànd ak ñoom teel a siiw géej dèjà supporter ñu ma dem topp géej topp ñu ma sax arène yaa ngi dégg ma dem ba ñëw ci mbapat yi xam nga parce que man ku xam Eumeu Sène rek ci xaleem ba mag rek ci làmb la sama tour nag teel a dem à sa 18 ans nekk naa champion d'Afrique xam nga dem naa demaat dama ànd ak ñoom yiki nii ñoom rok bala champion ñu fii coow yëpp dama daa bokk ak ñoom regroupement di ànd di voyage ak ay drapeau chef de l'état téye mbappat lu toll ak 5 ans xaw ma kenn mënu daan téye ci mbappat tëb lambu séeréer lambu tugalóor comprends nga nag Eumeu Sène boobu gars yi ñu koy yàgg di dégg mais ñoom samay morom lañ boobu xëy na ñoom ñu ngi dem jàngi métier ñu ngi ci leneen mais xam nga gars yi moom tey bu Pape Sarr ñëwoon suba suba ci làmb xale lañ koy jàppee bi soog ñëw ci làmb ah, mais du ñu xool at yi waaw mm-hmm. ak jugement yi loolu la quoi waaw mais man waaw ak communication tamit aussi bu may dégg commune li euh, communicateur traditionnel le temps dañuy wax loolu ko wax ba nit ñi def mais man ama seen mm-hmm. su ma damay bàyyi parce que samay fan sa sax sumay supporter mm-hmm. waaw dara jaralu ma loolu quoi man bugguma gàccee yi naa xam nga loolu la affaire bu demee soo demee ba sant mënutuma damay bàyyi mais nañ xam ni ci quinze ans benn mbër moomu ci daan muy Modou Lo ans yi. mbër yi fi gën a tëdd dama daan. waaw keroog rek làmb ji wane na ko. kan moo fu ñëw balagay moom moo tëj ci làmb ji. ñaari yoon laa ko daan. mbër Bombardier moo daan Balla Gaye moo daan Modou Lo mënuñu ko daan. dama ko daan la daguère mu doon dama ko daan match yi la moom te ñëpp xam ne match ni mu demee mhm. kon tey ñooñu ku mënul daan Bombardier si ñoom ñoom dañuy dañuy dañuy ma ñuy teg ñoo voilà mi noonu dañuy demee xam nga man daan naa ñoom ku ñu mënul daan ba pare ñoom ba ñu jeex voilà ba ci Gris Bordeaux su ma ko may ñoom ñëpp dama leen daan tàkkusaan yu métti yu tar waaw combat yi gën a métti combat choc combat jànk yëpp maa ko bëre te dama nekk ni mbër mu xam ne mënoo ma waa ok Eumeu Sène ba am na défaite amaat na defet yaa parce que man ñam naa defet ñam naa victoire xam naa ñaar muy saf ok làmb ñam naa ci lu neex ñam naa ci lu naxari ok mais bokk naa man ci mbër yu bëre cachet yi gën a cher waaw parce que man sama cachet bi mu mujjee bëri ak Modou Lo 175 millions laa ko bëree. waaye déedéet waay waaw man du ma mbëru 45 millions mbëru 50. <laughs> voilà loolu laa fee bu demee. Ah. fay nañ ma fay nañ ma 450 millions ci suma diggante ak Balla ak Modou Lo ak Bombardier li may wax ñoom Modou Lo ñu ngi may dégg ñoom Balla Gaye ñu may dégg. waa waa kii ñoo ko bëggoon ni ko tey Escaf. 450 millions. ma leen du ma bëri ndax Balla bi ci bokk moo tax ok. voilà loolu kon man bokk naa ci mbëri gën a cher. voilà kon nag wax moo moo kiiw rek man mënu ma di wax. wala ngay bàkk wala dara. mais incha allah maa ngi defarwaat. maa ngi waajalaat. te incha allah ci kàttanu yàlla. dinaa ñëwaat te su ma ñëwaatee dinañ gis leneen incha allah. waajal waaw bu baax. maa waxtaan ak suma staff. xam nañ lamb xam na yoon bi. ok mi ngi yegsi na. mooy jaaxal gars waaye mi ngi ñëwaat. waruloo mën a jaaxal. dinañ gis leneen lu bokk nag amu bindaan gi. non incha ngi waajal daal man gis naa sumay fans du dëgg gis naa sumay fans gis naa suma ginnaaw nu mu yaatoo gis naa nu mu tolloo kon tam aussi am na neneen nu Eumeu seen war a ñëwaatee te incha allah ñu ngi ciy liggéey ak suma staff maa ngi ciy liggéey tamit aussi ak sumay nit quoi. léegi wala parce que fan yi nga dégg naa gars di ko wax xam nga ñoom seen nee na day bëraat ak Balla Gaye mais ba léegi dégg ñoom seen wax loolu. voilà ba léegi dégg ñoom seen wax quoi. combat bi nag ñu koy dox bëri nañ ah. waaw ñu ko bëgg tamit aussi bëri nañ quoi. voilà mais tamit aussi ñoom ñu ngi waxtaan ak suma staff ak mais itam Eumeu Sène mu nekkoon ba léegi mii fa. non déggul man fu ma nekkoon ba léegi maa man dégguñu man ma wax ba léegi quoi waaw loolu c'est important quoi. di nga nekkoon mooy dootoo bëreeg ma waxoon <laughs> d'accord xam nga waaw <laughs> comme président bi engagé wu nañu ko bàyyi ak moom ah. Hmm. waaw non non xam nga tey tamit aussi nit dafa am lu ma wax. Hmm. ok xam toujours su la quoi. ak 450 millions moom résultat ko du caaxaan quoi. voilà exactement quoi mais bon. yàlla baax na ko mais mbaa xam nga ni combat boobu amateur ko bëgg même say supporters am nañu ko bëgg. àdduna ñoo ko soxla. jàmbaar combat boobu mooy combat bi nga xam na nii. doy na waar. déggoo ma bu ñu waa kooku kooku déglu naa ko bu baax a baax baax xam nga naa ko bu baax. ci nu mu bëggee ci nu mu bëggee Balla Gaye xam ak nu mu ci moom. noonu la nit da ngay mën sa nit. xam nga ragal péete day xañ a wërsëg. man dama ko seetaan mais dama kontaan si moom xam nga parce que dama bëgg nit bu nit bu gëm nitam quoi ok seede yàlla xam nga dama ko seetaan mais yàlla mu ñax tiim xam ne dama am cofeel ci moom ba muy wax mu koy xool damaa xam ni vraiment ak fu mu jaar xam nga xam naa moo su ma su ma doon bëreeg Balla Gaye moom bu mënoo yónni jinne bu teq sama tànk <laughs> comme Pape Sarr ci yow rek. Hmm? ma ne comme Pape Sarr ci yow rek. non Pape Sarr moom moo raw ñëpp moom bokk na ko Pape Sarr romb na ko kooku mu nagul daw kooku mu kooku li Pape Sarr def dafa ko Pape. Pape Sarr am na kagul. xam nga man man damaa ñibiloo borom kagul. waaw te lamb bi jeexagul. waaw mais sa xam nga ne sa diggante ak Balla Gaye. dañoo ah. gis loolu xam naa ne fàtte nga kanam. ba du yoon la bi nga doon bëreel mba géej. waaw ah, kay. géej maa yow doo nga doon contact keneen doo nga doon contact. keneen waaw ndeysaan moo tax bu nee ma seen mag la ngeen baal ma. waaw damay xam noonu yi ak ñi xamul ñoo koy wax. man dama bëgg ngeen xool ba bu baax. yow Modou xam na ma. yaa ngi man maa ngi doog am 43 ans. jamono ji may bëreeg Eumeu Sène suñu booy la woon. dëmba gis nga. pour nga xam ne yow moom sax mënatul demee noonu parce que moom si laa jëlee samay problème yi. dinaa ko ko fàttali. parce que dañoo dañoo yàgg contact mu bëggoon di contact ak man. waaw mu gëj a gisante boobu développé na. waaw bu bëri ci arène bi. mu ñëw mu ne ma du ñu yëw too dama lay may wër nomba. ma jàpp mu ne ma jàppal bu baax rek. ndekete dafa am mu bëgg ma jàpp bu baax mu cross sama ñaar waaw ah, ah, xam naa prise bi waaw. li muy wax nii mel noonu saay saay mu bëree mbapatak. bëree gu ko fii. dina comprendre nga. waaw waaw seen du mag booy la ah, ah, mais fi may waxee yow nii fi làmb toll ah, sama dëgg laay wax man ba mu waxee ne dootul bëre ak Balla Gaye si ñu àndoon laa bokk moom bu amee combat leer na Pape Sarr nii mm. damay tukkeeg fu nekk dama koy génne ay sax uti ñaan lay dem est que dégg nga ma comprendre nga te musu laaj Pape Sarr yàgg na maa bëgg pour dem mbaaw mais mm-hmm. man li tax ma bëgg ko man naa xam mm-hmm. est que comprendre